Mhm. parce que àtte bi ci boppam day baax ñu xaar wala bëgg itam ñu xam itam lan wala bëgg itam yan risque moo leen ci war a mën a fekk. mooy ñi su dee ne maanaam non lieu amu ci comme ni nga ko waxee te kenn yaakaaru ko ci. mënu mënu am non lieu pour mën na am non lieu pour ñenn ñi. waaw pour ñenn ñi mais mënul am non lieu pour ñëpp waay pour ñëpp déedéet. dans tous les cas affaire bi dañ koy àtte. parce que parce que fait bi mooy crime am na. les crimes bi meurtre la wala assassinat loolu mooy débat bi. ok yan daan moo leen ci mën a fekk. Euh, code pénal bu Sénégal moo ne article deux cent quatre-vingt moo ne tout homicide volontaire est qualifié de meurtre mooy bépp nit bépp rey boo tey meurtre la tudd meurtre meurtre nga dem voilà waaw mooy meurtre mhm. mooy nga rey nit volontairement tout homicide volontaire euh, homicide euh, euh volontaire oui. est de meurtre, meurtre. Mmh. article 281 tout meurtre entre préméditation et guet-apens est un assassinat kon xam nga ne meurtre ak assassinat bokkul ok pourtant ñaar yooyu ni koy déggee ñun ku mel ni sama saar gi dañuy jàpp ne lenn la. bokkul la. am na différence. bu baax. meurtre mooy nga rey nit te tay ko te bi nga koy rey préparé wu ko loolu mooy meurtre maanaam amul préméditation mais yaa ko tey. ok mooy yaa ko tey rey ko mais bi avant nga koy rey da nga koo pare loolu mooy préméditation get offense mooy da nga koo lal ay pexe. ok supposons am na ko bëgg a rey nga xam ne vingt lay lay wàcc romb ci angle bi nga taxaw ci. miiru ci angle bi. nga yokk xoj la mooy tudd loolu moo tudd get appendice maanaam tendre piège. ok léegi nag ñu ne la képp ko rey te tay ko nga nga nga planifier ko préméditer ko ba pare nga tendre ko piège wala nga sax ay pexe pour nga mën a sottil sa sa rey boobu parce que am na ñoo xam ne naan su ma koy rey fetel lay utiliser su ma koy rey jaasi lay utiliser su ma koy rey dama koy naanloo poson loolu moo tudd du ñu tuddee euh, assassinat léegi nag bu dee meurtre yoon dafa ne daan bi muy commencé loolu la ñu tuddee réclusion criminelle à temps mooy xam nañ kañ ngay génn ñaata at ngay tëdd kaso ñaata at nga mën tëdd kaso waaye mu ngi commencé dix ans ba vingt ans. ñu ngi ko natt ci diggante vingt. dix dix ba vingt. loolu mooy meurtre. waay mooy la réclusion criminelle à perpétuité ci ci olof France bu simple mooy à vie. loolu amul dans le temps amul limite. mooy da ngay tëdd ba faatu. fii rek yaa ngi dund. waaw maanaam li lay génnee kaso. doo génn kaso maanaam li lay génne ci kaso bi. nga am liberté. doo am liberté parce que dundoo mooy nga dee. wala boo génnee ci kaso bi dangaa dem. hôpital mooy ki nga dañ koo àtte ba gis ne moom assassinat la. la kooku réclision criminelle à perpétuité la mooy kaso bi moom lu la fay génnee rek mooy. Euh, li ñu tuddee percal bu bu weex bi moo lay génne duñ la rey de mais doo génn. ok mais nag li génne sooy génn say mbokk dañ leen li jébbal na leen waa ji dee na loolu moo lay génne. loolu différence bi. ok d'où maintenant ñu éviter di tuumaal nit ñi. waay waay. parce que ñi mhm. lii moo leen ci mën a fekk dix ans quinze ans vingt ans à perpétuité ñu du sàcc. ñu naan la ay 6 mois yi génn nga toog génn li 10 ans la vingt ans quinze ans à perpétuité à vie c'est du sérieux moo tax ku ci xam dara balaa ñu lay jaay waxal dëgg soo waxul dëgg ñi nga ñu amuñ sa jot sëriñ bi danoo ñëw pour la manifestation de la vérité judiciaire su dee dañ la bëgg a xañ vérité boobu nga naan dafa am koy aar koy protéger nekkuñ si loolu dañ lay jàpp yóbbu la ndànk fële tuddee la complice mu jeex ñu jàll ci leneen léegi nag balaa loolu di la ci fekk nga wax dëgg. pourtant nag ñaari baat yi nag nga nga leeral ci woon gars yi dañ koy caawale lu bëri de pour ñun lenn lenn la de. bokkul de. ok pour pour kay. léegi pour nga comprendre bokkul. ki ñuy toppee meurtre ma ëpp chance. ki ñuy toppee assassinat ki ñuy toppee assassinat parce que ki ñuy toppee meurtre bu juge bu waxee ne yow yaa def. Mhm. même bu dee yaa def. mënoo fa nekk ba dee bu dee boo guddee fan dix ans nga fay dekk wala vingt ans quinze ans après nga génn ñu libéré la. waaye léegi bu dee assassinat lañ lay toppee ba juge bi ne yow yaa def foofu yow amoon sens mooy si boobu mu yow jant bi moom doo ko gisati doo ko gisati bu dee da ko dugg jeune foofu ngay màggatee bu dee dafa am loolu commencé say projet si àdduna mënoo yooyu moom pare nga si loolu dafay yàq live bokkul ak meurtre. ki ñu wax ne meurtre meurtrier nga kooku mën nga am pro nga mën nga am dix ans ñu tëj la mën nga am plutôt vingt vingt ans ñu tëj la vingt ans boo génnee nga am quarante ans mais xam nga sa live yàqu na. parce que boo génnee quarante ans euh, lan nga mun defar bu reconnecté wu si live yi walla nga am tey trente ans ñu tëj la vingt ans ti as mi tu as moins de chance nga génn fekk amuloo problème parce que boo génnee di nga am au moins cinquante ans. léegi xoolal suñu paay suñu mag ñi ñu am cinquante ans ak nu mel <laughs> et surtout am na ñoo xam dañuy am hygiène de vie mais yow da nga dem ci benn ruqu traumatisme boobu daf lay travailler donc quand tu as cinquante ans et dans des conditions carcérales yoo xam ne xam nga lu la fa dugal mais sëriñ bi loolu nit nit rek la mënoo maanaam boo ko supporté aussi dina feeñ ci sa euh, ci sa ci sa mind ci sa esprit donc moo tax c'est c'est du sérieux c'est grave il faut que ñu éviter lépp koo gis rek nga ne euh, ci la wala lii la. Hmm. loolu c'est une erreur. parce que loolu soo ko waxee nit bu la porter plainte dama la ne bu la porter plainte yoon daf na yaa tooñ parce que diffamation la mise en danger de la vie d'autrui loolu lay tekki te lii yëpp infraction la. ok ku ko mën di def bu doon da nga koo def te xamuloo bàyyil soo ko defee te xam nga bu ñu la porter plainte boo demee yoon da ngay tëdd parce que yaa tooñ. mais suñu code pénal yaakaar naa la at yooyu nga xam ne teg na ko ci ki nga xam ne bu benn assassinat lañ koy jàppee nan lay expliquer ne moom la jàppee koo xam ne reykatu nit euh, xam nga. ci lii de mooy li yëpp assassinat crime la. meurtre crime la. viol crime la. terrorisme crime la. empoisonnement crime la. empoisonnement. ah yaa ngi rey nit. tey soo joxoon nit poson. am poison mu naan ko. Mhm. deewul. waay kan moo wax rey. yow mi ko <laughs> léegi léegi. loolu mooy. parce que li tax ma laaj loolu mooy day baax. Ah. maanaam nit ki àtte bi ñu teg ci kawam. da nga ciy mën a xawee da nga ciy mën a xamee ñi natt àtte bi wala boog àtte bi ci boppam. Mhm. lan la jàppee nit kii. Mhm. fan la koy considéré maanaam kooku dafa doon ko xam ne bu génnoon day doon danger ci public bi day doon day doon day doon ba tax ñu teg ko daan boobu ci. xam nga même ku violé criminel la. criminel la kuy violé criminel la ku violé ba ñu xam ne cri yow danga nga violé yoon da ngaa violé. criminel nga tudd. ku rey nit ñu tuddee ko meurtre criminel nga meurtrier nga ku assassiné nit nga rey ko. mooy assassiné nga rey ko préparé ko assassin nga criminel nga ku empoisonné nit criminel nga léegi nag bu ne dafa am degré ok tey tubaab dafay wax ne décès nit ku faatu la moor nit ku faatu la meurtre nit ku faatu la assassinat nit ku faatu la lii yëpp nit ki moom dundul waaye bokkul. bokkuñu waay. léegi nag bu dee da nga bëgg naa non lépp benn la assassin assassinat meurtre kii yu ñu tudd sax euh, mort ak lu ñu tuddee euh, décès ci la même chose donc amul problème c'était pas la même chose. bokkuñu déedéet. parce que décès nag ku décédé képp même bu ñu la agressé tu es décédé tu es mort. waay waay mais ku ñu dóor bal xam nañu dafa décédé mais bu dee dafa ku ko dóor bal dafa préparé mbir mi ba dóor ko bal <laughs> loolu assassinat la. ok léegi nag ko euh, ku ñu toppee homicide involontaire koo xamante ni dafay ñëw euh, moom mu ngi ci mu ngi dawal oto mais oto bu muy dawal mu ngi ci mu ngi mu ngi vitesse normal mu jékki-jékki rek benn xale te gisu ko mu jékki-jékki xale boobu traversé te xamu ci dara mu bëgg ko xale bi dee loolu homicide involontaire la. loolu mënoo ko tuddee meurtre loolu la ñuy tuddee homicide involontaire. certes tayoo ko waaw dañ lay tëj dañ lay tëj waaw amuloo dañ lay tëj kaso parce que dafa am euh, trois éléments yoo xamante nii da pour nee na pour infraction am pour ñu firndeel ne danga def lu yoon tere il faut ñetti yi am ñett yi bu amul kenn mënul la tëj amul kenn ku la mën tëj du juge du procureur du kenn en tout cas boo ko tegee ci yoon kenn mënul la tëj mm-hmm. ñu ñu ne il faut mu am lu ñu tuddee élément morale ou intentionnelle il faut nga am yéene wala ñu gis am nga amoon nga yéene. yooyu mooy élément mat moral voilà ak l'élément matériel mooy mbir mi lu lay toppee lu am la mooy gis nañ accident bi gis nañu rey bi nit dee na loolu mooy élément matériel ak lu ñu tuddee l'élément juridique pénal plutôt ok mooy il faut loolu am mu fekk yoon da koo tere bi prévoir ñett yi bu amul. amul kenn ku nu mën a tëj cest à tey mënoo tëj sénégalaise buy jaay boppam. te mu am carré mënoo ko tere. parce que yoon terewu ko mënoo waaw parce que yoon terewu ko. Euh, mën na jaay na boppam loolu c'est l'élément matériel. Euh, mu ngi waxaale pour jaay boppam loolu élément intentionnel la. mais jaay boppam boobu terewuñ ko parce que yoon da ko prévoir. amoo élément juridique donc loolu la loolu la. maa ngi noté de. <laughs> benn juriste bu ndaw bi nag ñu commencé di woowee léegi. ah, ah non loolu la c'est-à-dire lu la yoon terewul mu dagan na. ok c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis mais tout ce qui est permis n'est pas forcément interdit. ok mais am na kenn koo xam ne euh, mën naa ne ci ñiñ teg loxo la bokk. mu hmm. di as ndaw su jigéen jàpp naa ne benn jigéen moo ci nekk. waaw d'après information.